الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu del ci waat ci 2426 ci ndimbalul borom bi tolluwan ci euh, sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam mi yàlla euh, jiital ba noppi mujj koo yónni lu nekk ci weeram di ko fàttaliku ci fànn yu bari te ñi yàlla defal tawféex jox leen xel ñi ngi gën a yokk ci moom bu baax ci weer wii ndax luñ gëj a def ñu ngi koy def ci ay yooni salaatu ala nabi yu am solo yooyu ñi ngi gën a jàng ak dundam gu sell googu ñi ngi koy gën a am ci seen xol moom yonent bu tedd boobu ak yeneen yu bari ak jëf yi ñu jëf yoo xam ne seen alal ma ngi koy dem ak seen temps te yàlla a ngi leen di dimbali ba defuñu ko ngir ngistal waaye dañ ko def def ko muy lu ñu warul seen bopp waaw kon mbase ma yi nga xam ne nag léegi dañ koo dëkke ku dëkke loolu kon nag waxuma nag doo xaar weeru gàmm waaye yow eh, ñetti téeméeri bis ak juróom fukk ak nangam yi yëpp yëpp bu dee xamariya yaa ngi gàmm yow ab jullit foofu la war a nekk nu saxaaba yi doon dundee mbokk yi bi ñëwee ba ni suñu boroom ko yónni ni ko dañ laa yónni ci ñëpp loolu moo ko jëkk am maanaam moom li ay kiimtaan ci moom dafa bari ba mu ne su koo takk moom lañ jëkk wax wa ma arsalnaaka ila kaafatan linnaasi bashiran wa nadira suratu ah yónniwul la ngir ñii bàyyi ñee ngir fii bàyyi faa kaaf fatanaas mbooleem luy nit gis nga ko ngi noonu feneen fu mu waxee xam le ni yàlla nga ko yónni ci xaqalay ni mooy eh, nit ak jinne jinne loolu bokk na ci ay kiimtaanam yu am solo yooyu eh, bokk na ci ay kiimtaanam yu am solo yooyu mooy yonent yi ko doon jëgle ni mi ngi ñëw ba ki yàlla mujj yónni avant mu ko yónni muy isa alayhi salaam ni ko yàlla binde da lay fàttali ni yàlla binde aadam nga xam ni jaarul ci ndey jaarul ci baay te kii jaar na ci yaay sax waaye jaarul ci baay ak diir biñ ko euh, ëmb ba mu euh, ba mu gane àdduna moom yonent yàlla isa xel yëpp yëpp yëpp dañoo war na wiñ ku gëm yonent boobu nuñ ko gëmee woon nag bu ñëwee ban leen nag am na kuy ñëw tudd Muhammad suñ ko kon loolu day facilité day yombal nit ñi ndax yàlla da ko tombeel mu bokkoon ci euh, mu dajeek ñoo xam ni mooy waa Banu Israil ñu dëgër lool lañu naqari jëflante lool ba ci mujjam ñoo ko doon jéem a faat di ko jéem a rey saa boroom yëkkati ko moom waaye bàyyi nag ka nga xam ne moom moo leen doon jaxase ki Isa ñu rey kooka daaj ko ci croix ba léegi jeexit boobu moo topp ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem te fekk Isa moom reyuñu ko kenn pàndaru ko gis ko kon kon cër bi ko suñu boroom cëral eh, wax ni moom eh, mbég la ñeel doomu aadama allahu akbar xool xool rek googu kiimtaan ba siiran waaw bashiran li naas kon kadoo ngi noonu kadoo ngi noonu ndax euh, ni mu nekkee kado nag ba tey nasir sax kado la ab xuppekat boo xam ni day tax ñenn ñi dellu ginnaaw ñenn ñi xam ni yàlla am na ñu daal di gëm xam ne àllaaxira am na nit ki day dekki am na lu ko fay xaar la ko fay xaar mi ngi aju ci ay jëfam ci kaw suuf lépp ci ay kiimtaanam la bokk maanaam ay kiimtaanam yu am solo yi nga xam ne moo yu mel noonu nga xam ni bokkul ak euh, kiimtaan yi mu doon wone ca Màkka ci euh, loo aw xeer ak yooyu yëpp xaruwee rek nit di ko gis nii bëtum jëxrën waaye yeneen kiimtaan yii may wax nii muy mber ma mu ko yàlla beral waaw yàlla moom moo yàlla moom rek moo man lu muy def du manqué du manqué de kon li tax mu mujj ko yónni te jiital ko ñu waajal ko mu ñëw mel nii mu mel ba mu tàmbaleeg léegi muy gën di yokk di gën di yokk kenn nit la woon ba tey jullit yi àgg ci deux milliards dafa jàpp naa ni euh, ñiy wàññi lim buñ la wax rek euh, jullit yu weesu lañ foofu xam nga su fekkee ni da ngay ne nag diine joo xam ne ñoom benn jabar ngay takk jeex na ca nga yem kii moom mën naa takk ñaar ñett ba ñeent ah ak yeneen ak yeneen yu baree baree bari ñooñu wax dëgg yàlla euh, bu ñuy wax benn lim bi rek palla nangami at jàppal nii lim boobu wees na ko wees na ko waaw kon isaa moomu ñëpp bàyyoon xel wax gi mu annoncé woon aleyhi salaam bokk na ci kii kiimtaan yi nga xam ne waral naa tax maanaam bi mu ñëwee rek ñu daal di jóoru waaye nag seytaane moom euh, li nga xam ni mooy cent pour cent du seetaan fen fenn mu di am te dafa am nit ñoo xam ni mbokki seytaane lañu ñëwal ci Sénégal gii rek liggéey bu rëy bii fi mag ñi def ah, ci ñaar fukki at yii maanaam deux mille ba léegi wala lu gën a jige li nga xëy moom la xale yi xam ci ngawtu ngawtee guñ leen di ngawtu ngawtee mel ni mag ñi ñoom ñoo fi def njombe loo xam ni ba koo xam ni jàngi na ba ñëw rek ci dangay dal ci seen kaw ñu lay dégg ba déggatuñ la rek ci ñoo xam ni dañoo jàpp ne moom euh, waroon nañoo xas ñu ne ñu ne ba mu des mag ñi waaye gis nga kon adduna euh, nii mu tëdd nii waru fi dafa yomb lool alal dina war nit waaye ab xam-xam dina war nit euh, ab juddu mbooloo ak pal ak siiw lu ci bari dina war nit waaye yi ma wax benn bu ci nekk dina dina sowe nit dina am xam-xam ba xam-xam bi sowe ko yomal xiyaamee nit dina sowewu ci pal guñ ko pal lam def ca pal ga dina sowewu ci mbooloo mu bari mu ko jublu waaw waaye safaan ba day am safaan ba day am waaw kon suñu boroom gàtteñ luwul ci ci nun nun nag lu tax ni gàtteñ lu ci suñ bopp suñ boroom moom gàtteñ lu ci moom moom mooy gàtteñ lu ci sa bopp rek sa bopp rek waaw ndax e, lil war suñ diggante moom ci suñ wet nag moo tax may wax yàlla dara da koo warul ci nun amul obligation amul forcément boo xam ni yàlla moom fokk mu def nangam déedéet loolu bu ko ab jullit gëm sax jullit gëm ginnaaw noonu li nu war nag te genn wàll ga sax duñu ko def duñu ko def mooy ñenn ci nun ñoo wutul def te luñ bàyyi ñi koy def def ko sax faf ñiñ fekkul seenu dund sax ñu def lañu war a def ñoom ba gàll seen bopp loo xam ni warul leen woon ñu ngi seen euh, liggéey boobu rek coow lu bari lii nga dégg fan yii ñu ñu ko wax ci internet bi yenn wax yàgg lool ñu yëkkati daba yu mel noonu ah te débat bii waroon na fekk jamono jii noo ngi ci eh, judd Sayyiduna Muhammad noo ngi ci melokaano bi nga xam ni dafa am lu mu rëdd te ñi ci jaaroon dañoo doon gouverner àdduna nanga nangami seekal ba bi ci mujj am muy dawlatu usmaniya fii ci turk nga xam ni dafa dajoon alam bi yëpp yëpp lu mat sept huit siècle siècle bu lañ téeméer am na ko ci leen ni ci ci li mu ari xoole yaxal nu fekk ko fi te kooku ba muy door mu metti lool maamam tàmbali woon ko am fu ko yóbbu baayam artoxro ñëw gën ko yéegal moom mu ñëw nag eh, moom it gis nga doomam sëtam muy Muhammadul Fatih gis nga moom it voilà ñëpp inspiration bi nga xam ni moom la ñu jëlee ci yonent bi salaatu wasalaam ci lañ taxawale lool fii tamit inspiration bi nga xam ni li taxaw ci diine fii la taxawee dala ko ca ña jiitu Seexu Amar ba ci ñii yàlla mujj jox raaya wi ñu def ci ay liggéey yu am solo jaadu na rafetoon na nag ñooñu am na nu ñuy waxee ci seen liggéey bu bu nit ki buy wax ci mag ñi te ni ab jullit la lu mel ni euh, lu mel ni mbañeel gi ngay dégg daal jullit boobu ma daal loolu daal jaaxal na ma rek jaaxal na ma daal yow am na ku def lu bon dëkk ci lu bon di yàqal lislaam ci wax ak jëf ak lépp doo ko musa tudd waaw dib jullit ni yow wala sax du jullit waaye li muy yàq waaye ñii nga xam ne ñoo fi tane ci wàllu diina ji ñoo fi installé ci ñoom la jaare li fi nekk ñooñu daal ngay war guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg ma daal loolu jaaxal na booy li ci ngay bind benn mbokk ni ma waaw léegi ah, lu tax eh, kilifa diine yi muy xalifa yi fi nekk lii yépp yëpp mën nañ koo faj ci benn benn benn bis te ñoom duñu ko faj man koo ak ah, ki ci gën a ki ma ci gën a mën a sukkandiku ci ay waxam yoo xam ni ah, xam naa ko daal Sëriñ Muntaxa am na foo xëy boo ko fay mer mi nga mer moom mën na laa faat ndax ndax moom fam nekk xam naa du fa jóg mun ma mun ma famu nekk man koo nee na moom euh, lii nga di tuddee maanaam kattanu gii yàlla defal suñ tubaa doole ji nee na moom du ci tooñ du ci fayu ah kullu fayu nag kullu fayu nag xam nga ne moom wax dëgg yàlla ah, ah, mi ngi noonu rek bu fekkee doo fayu te yow ñi lay eh, eh, ñi lay tooñ yaakaar gu ñu yaakaar loolu ni yow moom mbir yi mën naa bañ a àgg ci yow lii ñuy wax ak it même bu àggee ci yow moom lii moom jërul la nangam te kooku moom taqwa da koy dégg rek ay ragalul yàlla kon nii lay deme rek nii dee demee de eh, bu fekkee nag sëñ bi moom foofu la ne yow fexeel ñëw fekk fekki si sunu classe gi nga xam ni maa ngi dégg sama mbokk mi sama sëriñ bi sëñ Mouhamed Mbacke laa ramatu di ko wax di wax tooñ yi nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci diine ji rawatina sëriñ si rawatina suñ tubaa yu bari mu wax ko ni loolu ak tooñ la daal di wax ni moom nag wax dëgg-dëgg yàlla lu ci mbir ñàng-ñàng mën na ko topp diglu ko te du ko déranger te xam naa bari naa ci moroom waaw du ko déranger mooy du tax mu soppi aw doxin wala aw waxeen euh, wala mu jóg def yenn réaction yi walla wala wala wala da koy naqari boobu wax nag nga xam ni kii nii muy waxee ak yii muy faram fance mi ngi démentir wax ju ñaaw juban ji nga xam ni ay sos la loolu ñu ñëpp dañuy dal dina naqari suñu xol waaye am nga maîtrise yow bu sol ni di nga mën a téye sa bopp bu baax a baax am ñoo xam nag amuñu maîtrise boobu amuñu maîtrise boobu waaye xam naa daal feet amuñu àgg foo xam ni état bi mooy nag dogal nag wax indi nag euh, indi nag woo xam ni ni ñuy ñage euh, ni ñuy ñage njiitu réew ni ñuy ñage suñuy euh, suñuy suñuy suñuy ramz dañ koy boole xalifa généraux yi wala boog lañ ciy boole Euh, fondation bi nga xam ne wala bokk fondateur turux yi ñi fondé tarixa yi waaw su ko defee loolu dina mën am lu mu may taalibe yi nga xam ni ñu ngi jéem a aar ndono li nga xam ne moom la moom la fi mag ñi bàyyi ba aar ci mag ñi xëy ñoo ko fi bàyyi waaye fekk loolu amul man jàpp naa ni lu bari bu fekkee ne yaa ngi koy métti lu gëw ni dina gaaw a dañ waaw gaw ko de waaw lu yomb faj la ci kilifa yi waxuma réaction waaye wax rek wax rek wax rek boo ko defee yéen ngi fàttali ko fii RTS mën na eh, am ku fa nekk eh, xaw a doy waar lool lool ci yoonu eh, waaye defe naa mënatu ko wax mu na rëccu ko lool rëccu ko lool ndax am na lu xew ba Abdou Diouf bañ ko ko yëgaleen daa def la mu war a def ah yow fenn rek nga foo mën a waxe ah yow rek mel ni yaa moom télé beeg rajo bi rek ah, ñu xëy xëy xëy nangu ko jëlal sa place boobu robinet ba nga daa roote léegi ñu ñu coppe ko waaw ah? ñu kon yal na yàlla defal tawfeex defal ko bokk yépp su ko defee nag kon dinañ ñëw ci euh, lu ñu a gàmmoo lu ñu a gàmmoo euh, wax nañ ko ay yoon yu bari ay jamono toll foo xam ni nit ñi fokk rek ñu leen di fàttali niñ ko baaxoo wan fa dakir ina faati zikra lay dakkaru man yaxsha kon euh, fàttali boobu nga xam ni ci sa bopp yow mi koy def ci ngay tàmbalee ndax ñun ñëpp lan war euh, ba léegi defewul ko ni ko war a defe waaye day mel ni waxtu wi damaa dab dañuy yem foofu rek ba ba ëllëg ñëwaat incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا